dogram dox sama gars yi di leen nuyu di leen ziare Kebe Loves di leen indilaat beneen vidéo tey tey dañuy dem salle entraîner liggéey loxo si ah, vidéo bi mujjee dugal da ngeen gis ne ci bi may squat noonu laa gaañu même ci vidéo bi doo ko mën a gis mais après laa ko yëg sportif yi ak gars yi entraîner xam nañ lii bu baax ne boo demee salle par exemple ngay entraîner nga gaañu en général doo koy sax yëg maanaam da ngay yëg ne gaañu nga tuuti rek mais mettitu gaañu bi doo ko yëg bu baax a baax lu dul ne da ngaa dem sangu noppalu toog nga koy soog di yëg bu baax. loolu nag moom ma dal bi may entraîné bi may squat noonu boo xoolee vidéo bi sax day mel ne xam nga squat perfect laa def mais sama sama gannaaw bi may wàcc dafa balancé wu dafa jëm ci sama côté gos tuuti rek moo tax sama gannaaw gi di metti mais boo ñëwee ba gàllee ba noppalu toog laa ko gën a yëg nag toog deux jours yoo xam ne daanaka sax mënuma sax dox ah, deux jours yooyu ma ko jël noppalu après tey ma ne xaaral ma jóg ma jógee mën a dox man a kii samay soxla bugguma tëdd toog ay jours yoo xam ne duma entraîné wala duma def benn activité kon damay dem comme que sama gannaaw la jàpp damay dem liggéey si kaw loxo ah, liggéey loo xamante ni du metti sama kon semaine bii ak semaine bi si topp fii ñaari semaine damay jox sama bopp temps pour ma noppalu li may defee loolu mooy su ma demee salle du ma yëkkati lu diis damay yëkkati lu oyof di entraîner entraîner entraînement yu oyof di def ay répétition yu bëri ci lii képp kuy gaañu si salle bi man nga utiliser même méthode bi mooy jërul ngay jël temps bañ a entraîner wala bañ a yëngatu lu du ne da nga yor loo xamante ni mu ngi lay xaw a rey comme genre Euh, boo gaañoo ba mënoo jug mënoo dox yooyu jërul ngay dem mais bu fekkee ne mën nga def dara da ngay dem salle changer sa programme continuer di entraîner kon boo dee entraîner nga gaañu sa tànk jërul ngay liggéey tànk mën nga noppal sa tànk mais ngay liggéey si kaw wala ngay entraîner nga gaañ sa loxo mën nga noppal sa loxo di liggéey sa tànk mais jël lu tolloog un yoo xam ne doo def benn genre activité te man koo def loolu jëru nga koy def ndax da lay da lay yóbbuwaat gannaaw maanaam boo entraîné ba am progress bu baax nga noppalu bàyyi jëm demoo weer wu lëm loolu mooy li nga amoon danga koy ñàkk kon da ngay def li nga mën nag jëru ngay dem di gaañ sa bopp mais bu suuf ki di metti wala suuf ki nga gaañu fi mën nga liggéey si kaw boo gaañoo si kaw man nga liggéey ci suuf kon dañuy dem saal nii liggéey yenn saa yi moom même soo gaañoo sax danga war a ñëw saal xam nga stretch wala nga daw wala nga def lu yomb loo xamante ni ah, du la gaañ te boo ñëwaatee maanaam boo demee ba tane doo lose sa ak muscle bi nga build avant ngay injure moo tax ma ñëw mais ba tey nu mu gën a yombee rek tàngal yaram bi ñàkk tuuti dem ñibbi. gën a difficile si man mooy saa su ma ñëwee jëm damay jéem yëkkati lu diis boo gaañoo nag loolu doo ko mën a def lu oyof rek force da ngay yëkkati ku oyof nekk nii maa ngi trent cinq pounds su ma yéegoon tuuti rek damay gaañu lu mu tuuti tuuti damay gaañu ndax boobaa damay yiw damay utiliser sama gannaaw bu mu jàppale ma ma yëkkati ko te nii strict strict rek laay def mooy amul benn mouvement bu may def boo xamante ni sama biceps si def ko. war a gaañu gaañu dafa soof mais foo nga jël temps ak noppalu ndax lu ko may rek xam nga fi ngay nekk tëddi fee ay weer wala ay semaines yoo xam ne doo mën a entraîné ñu def su léegi suñ deuxième exercice bi koy defee curls lay doon moo li benn par benn loxo la ñuy def utiliser cable bi ak handle bi fii comme que benn loxo la ñuy def day gën a oyof ndax ñu mën a def ñoo mën a benn contraction bu baax bu ñuy def curls bi ah. yëgat Oh. Oh. mu toll nii moom xam naa semaine bii nii ak semaine bi si topp ñaar yëpp damay jéem a def trois fois par semaine ndax ma gën a noppalu bu baax a baax. mais sama gars yi ñaata ñaata temps wala ñaata jour ngeen dem si jëm ci semaine bi boo demee jëm ñaata temps nga fay def bind leen comment wax ma ñaata jour si semaine bi ngay dem ak ñaata temps nga de temps rek su ma ko defee fii dem ñibbi. ndax surtout bu jëm bi bëriwul nit yenn saa nag nga ñëw bëgg a utiliser benn machine ñetti nit taxaw di xaar jur yooyu moom daanaka deux heures de temps laa fiy def ndax du ma mën a am temps su ma ñëwee du ma mën a liggéey ngay ñëw xaar fii xaar fee yenn saa ma ñëw sax na damay door tànk fi ñuy defee squat na ñëw mu fees dell kon wax leen ma ñaata temps ngeen ñaata jour ak ñaata temps ngeen def si jëm ci comment section bi xool fii rek gis fii dafa gën a oyof tuuni

saay poids bi oyof la mel ne mooy yëkkati boppam tey moom répétition yi dul jeex rek xam naa fii ak ay moom sama gannaaw bi fan yi même deux jours yi passé nii ah woon sax dox dox rek mënu ma ko woon su ma daa jukk wala may julli problème yu bëri laa am alhamdulilah bañ tanee ba mën a def lii ah. exercice bii dañuy mujjee rek pour biceps après ñu dem def triceps exercice bi moom musuma ko bëgg ndax su ma koy def duma ko yëg bu baax a baax moo tax li ma koy def bëriwul mais tey moom jour spécial la ah, ah, ah. daanaka affaire mën naa ci def saa du ma ko yëg bu baax yëg tuuti rek moo tax dama ko dama ko njëkk def dama koy bokk ci ak dama koy boole si ak saa si mais mujjee def su may def biceps wala su may def su may utiliser machine bi. xam naa trois sets rek la ñuy def fii après ñu changé parce que salle mu tëj te damay yéex a ñëw ndax journée bi yëpp dama doon contemplé ne est naa dem wala ma toog fa yàlla sama gannaaw bi mu gën a tane si ngoon yëgatuma ci woon yëguma yëguma daal de métti bu baax moo tax ma ne xaaral ma ñëw tàngal yaram bi tuuti lii moom secret ñu dem def triceps bra suñu première exercice triceps reverse grip la ñuy def def ñu bi dañuy reverse suñu loxo bi def ci lu oyof def fii 15 20 répétition léegi mu paree si exercice boobu dañuy dindi cable bi wala baar bi def ci rope bi rope bi dañuy may ñu wàcc ba suuf a suuf a suuf a suuf surtout rope bu guddee nii nu mu gën a guddee rek lay gën a baaxee si exercice bi def fi lu oyof tamit bi tamit 15 lañ si def sama yaram bi naam yore naa ko nu ma koy woon chaque jour chaque semaine at mi mu koy woon doy waar. léegi dernier exercice triceps fii lañ koy defee cable bi la ñuy wàcc ko ba ci suuf léegi bi ko wàccee benn par benn ñu def. waaw waa jiy tëj jëm bi saal bi léegi la ñëw ne de mu tëj jëm bi mu commencé fay lamp yi sax ci dem.